Euh, donc, euh, tout de suite, les images du président de la République, Macky Sall, dans les, dans les salles de soins, en train donc de s'enquérir de l'état donc de ces blessés. Nous, nous, nous, suivons ces images. Voilà. Ça <coughs> va voilà vous waaye yéen a ngi gis donc kon image yi à l'instant même nga xam ne président Macky Sall mi ngi ñaw di massawu euh, blessé yi nga xam ne ñu ngi fii kon ci euh, hôpital euh, Thierno Birahim ndaw bu Kaffrine ngeen gis ko ni ñu référé lañ fii ñoom ñëpp lañ indi fii kon njiitu réew mi nag ñëw di leen xool di leen massawu gis nga ñi dañoo am ay gaañu gaañu si bopp am na ñoo xam ne ay blessé yu xaw a léger la blessure yu xaw a la am na ñoo xam ne seen blessure gaañu xaw na métti lool euh, ngeen gis ko ni président Macky Sall am tiis wax dëgg yàlla ak naqar ginnaaw bilan bi nga xam ne euh, kon mu nekk na bilan bu diis euh, te it mu ñëw nag kon di rek saw di xool ku ne sa gaañu gaañu nan la mel. Euh, ak taxaw bi nga xam ne kër docteur taxawu na la wax dëgg yàlla ñu leen di jaajëfal ko ba président di leen jaajëfal waa kër doktor euh, ci ni ñu rek taxawoo malaat yi ngeen gis ko nii mooy wax ak ki nga xam ne moom gis ngeen ko nii loxo bi euh, moo moo am ay gaañu gaañu ñu koy ñaanal yàlla rek mu gaaw génn nu mu gën gaawee ba fekk e, njabootam waaw gis ngeen ko président Macky Sall ak ministre ak maire bu Kaffrine di Abdoulaye Sow ngeen gis ko ni kii tamit am ay gaañu gaañu lii dafa wax dëgg yàlla day day day day day dalal xel bu fekkee na am nga métit nga gis sa njiitu réew mu ñëw uh, fii xool wax dëgg yàlla situation ak état bi nga nekkee li rek euh, euh, dalal na xel déjà euh, maanaam soulagé na lu njëkk d'abord ci ki nga xam ne moo am ay gaañu gaañu njiit mi ñëw fii di ko nemmeeku wax dëgg yàlla mu di ay démarche bu rafet bu am solo boo xam ne njiit réew mi président Macky Sall def na ko tey jii waxtaan ak ñoom ay ndaw ay mag góor ak jigéen gis ngeen leen nii ñoo xam ne xaw nañ Euh, rek euh, jël ay at moom jiit réew mi fu nekk nag euh, taxaw na fa saafonte ak yow waxtaan la laaj la lan moo lay metti ak li nga bëgg tamit ñu taxawoo la ko Sénégal dina la taxaw moom dina la taxaw moom ci boppam ginnaaw bi nga xamee ne joxe na ay instruction ministre gouvernement bi yëpp voilà Omar a euh, jaarama gis nga ko. voilà Bamba comme ni nga ko waxee président de la république ngeen gis ni muy ñi nga xam yàlla dafa dogal ñu am ay gaañu gaañu ci euh, accident bi euh, ki ngeen gis ne moom xam naa ne loxo càmmoñ bi moo am ay gaañu gaañu ñu ñu ñu taxawoo ko noonu. muy wax ak président ak ñi nga xamante ne ñeneen lañu ñoom lay ñëw di gis ne ki ngeen gis ne am na gaañu gaañu ci lex bi ak ci bopp bi xam nga mbirum accident moom moo ni demee euh, gaañu gaañu mën naa feeñ fa nekk donc euh, euh, ñi am ay gaañu gaañu daal ñoom la président di seet ni ñu ngi ci biir hôpital bi ànd ak ministre la santé ñu gis ne mi ngi ànd ak premier ministre premier bi. ak it eh, maire bu Kaffrine ak maire bu Kolda ak maire bu Vélingara maire bu Vélingara tam gis nañ ko si kon ñi ngeen gis ni ñooy ñi nga ñoo am ay gaañu gaañu eh, ci accident bi am tey jii ci suba président de la république eh, dem nag ngir defal leen nemmeeku leen ba kenn ku nekk mu xam exactement lan moo lay metti à lii nga xam moom ñu gis mooy bandaas yi ñu def si seen seen loxo wala seen bopp am na yeneen yoo xam ne peut-être am ay ñetti yoo xam ne dañ ko wax ak président ndax ministre de la santé ma nga fa Omar. waaw euh, bon moom bu ñu wax salle commune la ay blessé maanaam salle ñoo xam ne nit yu bëri ñoo fa nekk avec ah. ah, xoolal rajo bi ko waa ji woon en fait c'est pour dire justement mooy li ma doon wax sax cest à tout de suite. ils ont été en capacité de faire des rajo c'est-à-dire mën a xam lan moo xew ci biir yaramu nit am na ay situation wala des infrastructures yoo xam ne am fa rajo yombul xam nga rajo yombul parce que rajo bi déjà pour nga am cliché bi eh, c'est tout un processus donc révélateur euh, fixateur dafa am foo koy dugal pour am cette rajo là qui est une mais le fait que ñu am ko ça bi nga xam ne dañ leen di permettre intervenir très te boo gisee intervention nañ ko pour l'essentiel moo tax ñu bandage yenn yi donc ça veut dire que on a fait le premier point saytu nañ leen boo xoolee boo xoolee aussi la qualité de voilà la literie fi ñu tudd la lieg yooyu les euh, tous les draps se ressemblent ça dire que donc lu fi nekkoon la lu ñu dencoon la peut-être et cetera les matelas se ressemblent donc bon les conditions sont acceptables pour une prise en charge de ce type de blessé parce que nous euh, à vue des simplement il s'agit pas de blessures très graves ay contusions la ñu am ak ay des traumatismes légers maintenant certainement clairement il y a d'autres types de traumatismes beaucoup plus lourds et d'autres euh, d'une autre nature ça peut être euh, voilà osseux yàq wala biir donc viscéral yooyu yooyu xëy na ñooñu peut-être buñ ci jot en tout cas buñu nu ñu duggee fii ci salle bi euh, xëy na euh, les autres ne seront pas aussi accessibles parce que xëy na am na ñoo xam ne déjà ils sont en réanimation réanimation nag kenn du fa dugg euh, merci Omar donc

accident, 39 décès ont été constatés, 53 blessés, dont 52 pris actuellement en charge à l'hôpital Tchernobyl de Kafrine et un évacué à l'hôpital ont 47 blessés légers sont internés dans les centres de santé proches du lieu de l'accident. Une mise à jour euh, des informations sera effectuée en cas d'évolution de la situation. Euh, signé Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du gouvernement. Euh, nous avons en, en direct avec euh, l'honorable député euh, Alioudia, euh, également de Kilefodine. voilà bu fekkee mi ngi en ligne rek ñu jël ko moom Aliou Dia voilà euh, voilà euh, Aliou Dia ñu ngi lay di la ziar di la masawu également yow tamit nga rotal ay kaddu rek ginnaaw bi nga xamee ne accident bi metti na lool fii ci senegal tey ci suba. Euh, maa ngi sant suñu borom tabaraka wa taala di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp day ci yàlla la ñu jógee waaye ci yàlla la ñu dellu man sëñ Alioune Dia di porte parole njabootukat alhaaji Daouda Dia radiallahu taala anhu bu jolof bu mbëlëxe maay wax ci turu njabootukat alhaaji Daouda Dia yàlla dogal na accident bi bi nu ko yëgeeg léegi dañu dal di santaat suñu boroom waaye ñaanaat suñu boroom itam yàlla la fi gëj lool ndax musiba moom ci dee